kulli zarin wa fi safar hamani ala mahim wa safar Auchan daa doon loo xam ni bërëbu liggéeyukaay la nu bokk waaye ñu gis ni kat Serigne lépp lu muy def rawatina màggalam gi lu ci waay def moom Serigne fay la ko waaw te ñun booy xool Auchan li ko tax a jóg mooy

sunu dërëm tàbbi ci lii di lu mel ni màggalu Serigne tubaa gi loolu bokk na ci liy bàkkeer sunu liggéey ba tax na ci loolu lañ sunu njiit muy la Leclerc maanaam euh, ndege ni daaw biñ ko ko waxee mu ne ah ñu dey Sénégal la ne te Sénégal lépp loo xamante ne muy xew-xew moom sunu wàll da ci war a tabbi te lii yemaluñ ko rek ci màggalu Touba gi ndax gàmm gi yóbbu nañ sunu addiya Kaolack bi yóbbu nañu suñu nous gamu aussi suñu adiya donc ngir won rek Auchan lolé ñu RSE responsabilité environnementale et sociétale manam nous ñun nous koy jëfé ci ci ci religion bi ñu koy jëfé ci environnement bi ñu koy jëfé ci lépp lo xamanteni yëngu c'est quelque chose de spécial ndax euh, daw bi ñëwé moutakha diko ñaanal mu yag yàgg fi loolu te ànd ak wér daaw accueil nañu akay bo xamanteni ni la waaw te addiye gi ñu fi andi doon lu lu ñu xeeb sax ndax Laurent mi ngi koy wax nee mom c'était une première ndax suñu sañoon lepp lo xamanteni moy mooy dugg biir Touba ji ak lek ñun ñu andi ci suñu participation à 100 waaw ba taxna renit ndax Serigne Touba amul tank gënaaw lo def déwén. ren déwén nga def lu ko lu ko raw waaw ah, ba tax na ren it ñu ñëwaat ànd ak ma ànd ak sama collègue yi Laurent yebal ñu sunu DG ñu ñëw andiwaat sunu addiya sëñ taxa bëggee ko ñaanal ñu waaw ñaanal ñu ñu yokk ndax daaw daf ñu ñaanaloon ñu gis ko ren tamit ñaanalaat nañu ñaan ku neex waaw di ko di ci sant bu baax a baax a baax. daal ah, addiya moom du sax lu nuy lim waaye xam naa ne andi nañ ci diw andi nañ fi ceeb andi nañu ndox. andi ay jus andi nañu euh, sucre, moom daal lépp loo c'est des produits de première nécessité donc ñun euh, andi nañ ko waaw daanaka te fasiyene yéene nañ aussi ndax euh, loolu engagement la boo xamante ni sunu kilifa moo ko jël muy université bii di université bu Touba moom danañ ci tàbbi bu baax a baax a baax a baax a baax ndax lépp luy éducation aussi loolu lu ñu soxal la ndax tànk wax naa RSE e, donc luy éducation soxal nañu te bëgg nañ daal université Touba bi sunu sunu astut aussi dem ci waaw ba tax na ñu mën cee gëlee ngërëmu Serigne Touba. di nu nuyu nak ci turu Serigne Bass Abdoul Khadir mi nga xamne ne yor kaddu yoonu mourid ndax li kat ginaaw bu yalla wéyee ñu ko jaaral ci serigne Mamar Lo mi momo wo woo daaw ci magal gi xamal ma ne ma kilifa kilif seen kilifa muy Laurent ak mbolam ñi mbokal ozan dañu bëgg participer ci magal Touba ndax dañu sét ne dal mosuñ ko def nak nag ñu rëcc ko lool mu metti ci ñom lool ñu fas yéene ak Serigne Touba liggéey bi nga xamne moom la ñuy defal Serigne Touba mu ne ma naa ko waxal sëñ Basiru mu sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne moo yor kàddu yoon wi ba xam nan la ñuy def dañuy ñëw wala dañu yónnee sëñ Bas ne ma déedéet nañ ñëwal seen bopp nañ ñëw bu ñëwee ñëw ba leen ba ci mun Muntaxa xamal ko ne ko lii waa Auchan ñoo ko de joxe seen hadiye ci màggal Touba gi daaw macha allah camion lañ fendi boo xam ne li ci nekk kenn xamul nu toll mboolem xeeti ñam yëpp muy ceeb muy diwlin muy suukar muy lépp luy ànd ak moom ci wàllu ñam boole nañ ko ci. sëñ Mamar mii leeral sëñ Muntaxa Auchan lu ko tax a jóg ndax dafa mel ni Auchan aw dox yi ne umpoon nañu bare bari ndax dañoo jàppoon ne rek Auchan dañoo ñëw ngir tilimal liggéey bi commerce bi tilimal yàq mbirum mbirum liggéey ak jaay jënd waaye bi sëñ Mamar leeralee sëñ Muntaxa Auchan seenu dox ak Sénégal yi fay liggéey ak nañ ñuy joxee ak Sénégal yi fay liggéey sëñ Muntaxa da cee bëgg lool macha allah ñaanal leen ndax daaw sëñ Mamar a ngi koy wax léegi tey ne ko daaw bi ñu fi ñëw ñaar fukk la woon lañ amoon ci ay magasin ren ñing ci fane rek ben kon ma sha allah ñaan yegsi na indi nañ fi xéwal yo xane ma sha allah camion frigo bu maga mag lañ indi bo xane lépp lañ ci def lépp lu xéti ñam ak xéti naan xéti ñam ak xéti naan ci bëg diwlin xéti boisson xéti xeeti orange yëpp bañ ci biir ñu jël lépp jëbël Sëriñ muntaha ba ñu nappee ñu daal jël seen hadde dem jëbël Sëriñ Bassirou seen Abdou ak mboolem sët Sëriñ Tuubaa yi ne ci Sénégal yëpp yi ne ci dëkk bi kenn ku ci ne fañ wara a àgg nañ fa jox leen hadde loolu nag Sëriñ lañ ko defal kon nak ñi ngi leen di sant bu baax السفر